bon merci d'abord euh, damay permettre ma def benn rectificatif bu ndaw par rapport à la terminologie du du mot clandestin euh, depuis le processus de Rabat euh, le processus de Khartoum dañoo bannir maintenant euh, li nga xam ne mooy le mot clandestinité li tax ñu def ko mooy dañuy gis ne c'est un waaw dañ ko bannir parce que c'est un mot maintenant péjoratif un mot discriminatoire boo nga xam ne day tax Euh, par exemple nit ki dugg sa kër clandestinement par exemple sàcc wala dara kooku am nga mën nga am exercice ci moom loo xam ne waroo ko def moo tax ñu ne désormais le terme clandestinité mooy immigration clandestine bokkatul ci dictionnaire bi maintenant on parle de la migration irrégulière d' ailleurs euh, question bi comme ni mu ko posé il faut savoir que la migration d' abord c' est un droit garanti par la déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 13 wax ne toute personne mën naa jóge ci barab dem samp ji ci barab mhm. maanaam Euh, le déplacement d'une personne bien d'un groupe d'individus d'un point A pour aller s'installer vers un point B. Si le point A et le point B se trouvent dans un même pays, on appelle la migration interne ou bien exode rural. Si ces deux points se trouvent dans deux pays externes, maintenant on appelle la migration internationale, ce qui entre dans le cadre de la migration irrégulière bi ngay wax. Maintenant boo jëlee sur les causes, effectivement mën nañ ko scinder en trois y a Cause. trois causes principales yi nga xam ne mooy les causes de la migration irrégulière première cause c'est une cause sociale une cause sociale boo ko déggee mooy la pression sociale bi nga xam ne tey nit ki day nekk ci kër ñu ñu nekk ci société boo xam dañuy am noo xam dañuy am ku ni ñuy xoolee ki am ak ki amul par exemple man ak Amadou mën nañ bokk benn koñ moom bu dem bitim réew bu demee bitim réew yëkkati étage dugal ci waajuram man tel na pas le cas maa ngi ci dëkk bi bu ñuy jël exemple ci koñ bi ci moom la ñuy jël exemple ça c'est deux deuxième cause sociale bi mooy l'envie de découvrir c'est-à-dire mythe bi nga xam ne moo nekk au niveau de loolu la ñu tuddee entre guillemets Eldorado voilà maintenant beneen cause bi nga xam ne mooy ci am tamuy cause bu fondamentale mooy les causes économiques lan mooy les causes économiques cause économique mooy cause yi nga xam ne boo ko jëlee exemple lu ci mel ni chômage boo jëlee exemple lu mel ni sous-emploi et manque d'emploi loolu ak la pauvreté ce sont des causes économiques mooy ndaw ñi nga xam ne dañoo nekk ci jamono nekk fii nga xam ne mooy Sénégal te yàlla dogal na amuñu li nga xam ne moom mooy xëy wala xëy yenuy am maanaam matewul ngir ñu mën a saafara seeni besoins ak ceux de leur famille ñooñu nag pour nga xam ko il faut nga def un profilage man en tant que expert j'ai travaillé sur des documents parce que j'ai travaillé sur le document de planification euh, du politique nationale de la migration du Sénégal en 2018 j'ai travaillé sur la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière mhm. pilotée par le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière ñu gën ko xam la si lekk ñu basé ko au ministère de l'intérieur la stratégie je faisais partie parmi les experts yi nga xam ne ñoo yoroon document yi ak groupe bi nga xam ne ñoo doon xalaat di di xeltu ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu prévention ak dafa jëm ci wàllu euh, euh, comment dirais-je euh, gestion des frontières mais ci biir loolu ci ngay découvrirate beneen cause boo xam ne ñu ngi ko tuddee une cause diplomatique c'est quoi la cause diplomatique mooy le durcissement de l'obtention des visas mm-hmm. jeunes yi souvent ils ont d'aller parce que la migration c'est un droit mais c'est un droit organisé organisation boobu nga xam ne tey def nañ ko ci li nga xam ne mooy sur la migration day tax jeunes yi bu ñu bëggee dem fu ci mel ni ci bitim réew dañuy dem ci ambassade yi demander mais il se trouve que bu ñu demee ci ambassade yi ngir demander impérativement lañ fay fekk du doon ak li nga xam ne mooy yombal dem gi loolu moo tax ñoom dañuy tourner benn circuit dañuy xool effectivement ñoom ci ban accès la ñu mën a jaar ba mën a dem Euh, yegg bitim réew te doo du doon les les les actes formels donc loolu bokk na ci li nga xam ne mooy cause yi nga xam ne franchement mooy mooy yi gën a sonal maanaam maanaam maanaam Sénégal maintenant on temps vers une recrudescence pourquoi la recrudescence c'est parce que li ma wax sànq par rapport ak li nga xam ne mooy les les les politiques il faut ñu ñu ñu découler effectivement sur des solutions yoo xam ne tey dina mën a permettre ñu mën a saafara li nga xam ne mooy cette migration irrégulière maintenant par rapport à ces solutions il faut ñu xam ne euh, maanaam impérativement il faut il faut il faut ñu élargir ko selon causalité yi nga xam ne actuellement ñoom ñoo ciy am boo jëlee sur le plan social mhm. on amène ce qu'on appelle la déconstruction mentale c'est-à-dire expliquer les gens ne leen wax dëgg yàlla euh, tukki taxul tekki ça c'est un mais ñu xamal leen ne aussi mythe bi nga xam ne moom lañ jàpp ne Europe noonu la meloon melatul noonu tout vous voyez. Mhm. donc mën naa jël exemple ci exemple yu bari yoo xam ne tey jii euh, boo demee bitim réew parce que organisation laa yoraale parallèlement nekk un président fondateur de l'ONG Village des Migrants. donc on a travaillé sur la sensibilisation on a travaillé sur l'accompagnement des migrants de retour mais on travaille présentement aussi depuis presque 2021 sur tout ce qui est documentation et recherche des migrants disparus en Afrique de l'ouest et du centre pratiquement c'est nous plus part plus précisément moi qui pilote les documentations et les recherches des migrants disparus parce que ñun ñoo représenté le centre international pour l'identification des migrants disparus basé à Malaga ñun ñooy def tout ce qui est documentation de l'Ouest et du centre ba ci les autorités étatiques ak ñenn ñi bu ñu soxlaa chiffre ak information souvent ci ñun ci ñun ci ñun ci ñun souvent lañ koy amee